sunu borom tabaraka wa taala dongu moy kiko jago nogi juri di selmal ci yonente bi alayhi salatu wasalaam di ñaan sunu borom mu dekke dotti waamem xéwal ci kaw yonente bobu ak ay sahaba ridwanullahi ala sahabati ajmain ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم dellu siwaat nañ ñetteel bi yoon di ñetteelu bind ci tafsiru suurtu yuusuf ginnaaw bu ñu laytaayalee saar wi benn bind jot ci amaat beneen bind kon tey mooy ñetteelu bind ci suurtu yuusuf suurtu yuusuf nag jàpp na ne laytaay gi ñu ko defal rekk ci njaalbeen ga doy na sëkk waromam xel mu xam ni saar wii de saar wu mat a jox yitte la ndax ay yëf yu am solo di ay jàngat yu sew yoo xam ni bariwaana nit mën naa dund ay at yu bare bari ci dundam te du ca bàyyi xel te loola boo ñëwee ci saar da ngay fekk mu tënkal la ko tënk gu jekk goo xam ni dafay yee nit ki ci àddunaam waaye da koy yee tamit ci àllaaxiraam rawatina nag lu jëm ci mbirum kër ak nit ak ñam bokkal ak sédd yàlla nga xam ni taabuwu ca gone wala mag wala góor wala jigéen waaye sunu borom moom ay ngëneelam rek la yore yu bari yoo xam ni yuftihi man yasha daf koy jox ku ko soog soob wallahu dul fadlil azim yàlla mooy borom ngëneel yu rëy kon nag lañu suñ borom diggaloon dong lan war a def mooy was allaha min fadlihi ñaan leen yàlla ci ay ngëneelam kon julit bi war nay ñaan allahumma inni as'aluka min fadlik yow sul borom maa ngi lay ñaan ci sa ngëneel ndax xam ngeen ni tawfiq bi sul borom defal yonentam bii di yusuf loola moom ay at mayu ko ko jëkk juddu ca kër ga it mayu ko ko sut nit ñi am njàngit mayu ko ko waaye fadlullah yuti ma yasha wallahu dul al azim kon tey nu ngi tàmbalee suñu bind waxi sunu borom tabaraka wa taala a'udhu billahi minash shaitanir rajim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 وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب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 وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين كن آية يويو يمشي لاي نار فكيلك نار الحمد لله kon laaye jooju yem ci laaye ñaar fukkeel ak ñaar mooy sunu bi ndab tey ci suuratu yusuf sunu fet fàttalikoo ci bind bi weesu borom bi tabaraka wa taala nettali nañu ci as lëf <coughs> ci tàmbalib yonent yàlla yusuf alayhi salaatu wassalaam nettali nañ géntam ga ak lenn lu aju ci wàllu gént ak i àtteem taxawaayu ñam bokkal wa kadalika liy faral di xew ci jamono ci nit ak ñam bokkal te am lum leen ëppale wa kadalika foye gu seytaane foye seen xel <clears throat> ba ñu bëgg faagaagal ku ñu bokkal benn baay te it muy lu ñaaw loo xam ni ci dunduk àdduna gi mëseesu la gis xalaat bu ñaawee nii am mbooloo song ko xalaat bu ñaawee nii sax nit song ko mën nañ ni jenn doomi aadama def na ko morom ma waaye mbooloo mu doy nii seen bàyyi def yonent ñu mën a dëppoo ci xalaat bu ñaawee nii te yàq ñàkk yërmande nii loolu bariwut lu muy am ba ne leen seytaane ma ne bañ def seeni pexeek seeni débat déeb ba daal di koy tàbbal ca teen ba waaye nag borom bi tabaraka wa taala moom def na ay mbiram lépp dañ koo programme nga xam ni doomu aadama mooy tajaxu xamut lu xew waaye sunu borom moom xam na sunu borom tabaraka wa mu ni fa lamma dahabu bihi ba ñu naxanteeg seen baay nag ba seen baay bàyyi leen ak Yuusuf ànd ak bàyyi ga bàyyi ñàkk pexe la ndax seen baay amoon na ay mana ay amaaraat ay màndaxekaay yoo xam ni sukkandiku na ca ba xam ni gone yi jubuñu waaye nag la sax mu tere leen yàllaa ko xam waaye bokk na ci mooy ida jaa al qadaru amiyal basaru dogalub yàlla saa bu yegsee bët ba doon xool ba borom dootul fakkastalu day mel daa gëmm nga xam ni booy tàbbi ci kàmb gi sax doo ko tey ndax sunu boroom kat xam ngeen lim dogal dogal na ko ba noppi kon faw rek yëf ya am fa lamma dahabu bihi ba ñu àndeeg yusufa dem ak moom ba ca àll ba wa ajma'u ñoom ñépp ñu dëppoo ci kon baatab wa ajma'u moo lay wax ni amut ko ca génn xam nga mbooloo sax mën nañu ànd yu def lu ñaaw am ko ni man moom rafetluwuma lii man moom ànduma ci daal di beru déedéet wa ajma'u ñoom ñépp ñu daal di dëppoo ci an yaj'aluhu nañ ko tàbbal fi ghayabatil jubbi ca xóotaayu teen ba xam ngeen ni ab teen ak lu mu gàtt gàtt tàbbal ca nit wóoru dal ca pind ba dal ca biis ya ca biir lab ca ndox ma ak yeneen i xeeti risque yoo xamante nii daal jiitug dee nga xam ne nit ki mënoon naa loru mu baax a baax a baax te it bu fekkoon te ne dañ koo tàbbal tàbbal gu jekk sax nga xam ne dañ koo yoor ba mu yegg déedéet boroom xam-xam yi dañuy wax ne dañ koo yoor ba ca digg ba ba muy espérer ñu dagg buum ji xam nga loolu moom moo lay wax ni ñii ñoom lañ tàmbale wax ba léegi ca lañ nekk uqtuloo Yuusuf rey leen ko ndax man jàpp naa ni ban nee nan ko rey ba fi mu toll nii dafa gun leen lu génn nañ ko rey ndax tee nag na mu xóotee xoolal ni ko suñu borom misaale waxul sax ñu tàbbal ko ci tànn fii al jubbu dong mooy teen jubbu rek mooy teen waaye nag xóotaay baag lëndëmaay baag sori waay baag yooyu yëpp nga boole ko mu dugg ci xayaabatil jub bi moo lay wan ni kon baatab nan ko rey ja moom réyunu ko waaye daanaka lan ko doon def moo ko rey koo moo tax xeeti cëri àdduna yi wala alal bu jaralee doomu aadama day muy likkite mo moromam na yëg ni def na lu bon loo xam ne fu ñu ko nettilee rek da am gàcce te it waxoon naa leen ni leen yàlla moo yéeme ay mbir xool leen ña ko doon jéem a suul ñoom ñoo far suulu loolu la olof yi naan suul ker du ko teree feeñ nit ki bu fekkente ni dafa am suñu borom lu mu dogal loola naqari la ba tax ngay wër di ca wax lu ñaaw wala nga di ca wala nanguwoo dogalub suñu borom loolu la muy tëdd mooy iñaan añaan googu moo daloon ñii ndax cër bi Yuusuf amoon taar ba jege seen baay ak yaakaar gu ñu yaakaar ni bu amee ku nor doon doon seen baay ci nubuwa ndax xam ngeen ñoom même bu ñu xamul woon ku yeen doon yonent xamoon nañu nubuwa danañ ko doon foofu ci misaal cosaan la Ibrahima la woon Ibrahima jur Isxaaqa Isxaaqa jur seen baay di Yaquba kon Yaquba war na mën a jur keneen ndax wa jaalnaa fi durriyati nubuwata wal kitaaba loolu suñu borom waxoon maa yónni nuux ah yónni yonti yàlla ibrahima def ci seen ak njaboot fi zurriyatihim an nubuwata wal kitaab seen njaboot ci la yàlla def ak yonent ak wàcceb téere añaan googu ñu añaanoon moo tax ñu ko doon jéem a suul moo tax ma di leen fii ne ñooñu ñëpp kenn du ci xam seen tur fi mu ne nii koo ci laaj kan nga xam ku bokk ak Yuusuf du la ko mën a wax yow koo xamul sax nu mu tudd koo xam ne ci histoire rek yow turam rek daf lay leer réer kooku ay jëfam loo ci mën a nettali kon dafa mel ni ñoom même bu doon ay nit yu baax lañ sax seen baax ga yépp suuru na moo tax dogalub suñ borom gis nga kii yàllaa ko may xam-xam kii yàllaa ko may am-am kii yàllaa ko may alal kii yàllaa ko may doole kii yàllaa ko may xel kii yàllaa ko may taar kii ya kenn ku ne la ko yàlla may bàyyee ko loola te ñaanal ko yàlla barkeel ko te nga ñaan lu ni mel gis nga su dul loolu di nga am bakkaar di nga sonn te fa ngay mujj du la neex sunu borom mu ni ñu dëppoo ci nañ ko tàbbal ca teen ba wa awxayna ilayhi yàlla mu ne ñu wax yusuf ni ko latunabbi annahum bisa ngi ñëw boo xam ne yow mii day di génn ba waxtaan ak ñoom kon ku ko wax yi la dëgg la teen ba nag mitti woon na ci biir Yuusuf waaye nag mittit wa àndoon naag lu koy dëfal nag ndax yàlla ne woon na ko latu nabbi annahum gis nga bis dana ñëw latu nabbi annahum di nga waxtaan ak ñoom ba di leen fàttali mbir mii wahum la yashurun te duñ xam ni sax yaa Yuusuf xam nga loolu egseegul ban demoon ba Yuusuf nekk buur ñu ñëw di sàkku si ndimbal Yuusuf a ngay wax ak ñoom ba keroog Yuusuf naan ah ñu naan ko ah Yuusuf naan leen hal alimtum ma faaltum bi yusuf yéen yéeneen fàttali seen mbokk ma tuddoon yusuf la ngeen ko defoon loolu mooy la tunabbi un annahu mooy mbir mi di nga dem ba di leen ko nettaliwaat xam nga ne nag kuñ jël tàbbal la ci teen suñu borom xamal la di nga génn ba jamono soppeeku ba ngay wax ak ñoom te ki lay wax nga xam ne dëgg la ak wax yu la ah lu teen ba lëndëm lëndëm lu yëf yi metti metti nag loola nag li wala fi naan ko suñu borom di yenn daf lay wutal loo loo téeñoo kon loolu ab teeñ la kon borom bi tabaraka wa xamal na foofu yusuf ni ko dee du ko def ci biir teen bi te it dana génn la tunabbi annakum bi amrihim haada moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ni mu arrixu ni nee nañ bi yàlla dogalee ñu wax ak yaqub ba yaqub bàyyi leen nee na yusuf mi ngi kontaan di cëppi cëppee dal ndax xam nga xale bu xamul kañ dem àll ba nga ne kañ dem àll ba mu dëkkoon ci àll ba xamul ndakaaru nga ne kañ dem ndakaaru kañ dem parc an kañ dem parc nag maanaam xeeti dem yooyu xale da ko bëgg nee na boo xoolee mbégte mi Yuusuf àndal ak cëpp cëpp ji ci ngay xam ne mbir mi yërëmtalu na lool ndekete fa jëm baaxut ci moom bi nu wanee gannaaw kër ya daal ca lañ tàmbali xeeti wax ju ñaaw ju nekk ñu di ko ko wax xeeti wax ju bon ju ne ñu di ko ko wax dóor nañ ko padd nañ ko mbet nañ ko këmëx nañ ko bëmëx nañ ko doog koy tàbbal ci teen bi maanaam moom dañ dafa daj yu métti doog a dugg ci biir teen bi maanaam bu leen yàgg dañoo jàpp jàpp jékki-jékki ah yow yaa ñuy fontoo yaa gën a suñu bàyyi daal di koy dugal ci biir teen bi déedéet xeeti xor ñoñal ak i mettital yoo xalaat yu nekk def nañ ko ko doo koy tàbbal ci biir teen bi suñu borom mu ne ko bisa ngi ñëw yow di nga wax ak ñoom ba fàttali lañ doon def foofu mu gaa yi bañ ko tàmbalee ca teen ba ba noppi nag wa jaa'u abahum ñu dikkal seen baay nag ishaan waxtu gee waxtu ngoon bàyyi ba timis jot kenn ci boroomu xam-xam yi dafa def seetantal bu am solo dañu li lay wan nit ñii jëfi caay-caay dëgg lañ def mooy dañoo def liñ def ca suba sa waaw yéen xanaa ku tilli gi lekk ca suba sa bopp xanaa yéen waroon nañoo ñibbi si suba sa laa yaakaar bu dee borom xel ngeen till gi lekk na ko depuis ci suba kon ñoom war nañoo ñibbisi depuis ci suba wala boog bu ñibbisiwul xanaa war nañoo yabal kenn ni ko dawal neel bàyyi till gi lekk na ko waaye déedéet li day war ni ab saay-saay day préparé li muy def ku defu jëfi caay-caay dañoo bàyyi ba guddi jot ndax xam ngeen ni guddi day masque ak caay-caay guddi day masque ak caay-caay parce que nit ki nga xam dafa defu caay-caay digg ba cëg gi ci la xar kanamam di gën a xaawi sutura si que bu dee daal lëndëm ñu ñëw waxtu gee nag yabu ko ña ngay jooy xanaa warta war a nekk jooy jooy jooylu la sax la war a doon jooy jooylu boroom xam-xam yi dañuy wax ne li li tax borom tabaraka taala néewul jooy jooylu mu ni jooy bokk na ca mooy ñii ñu mënoon lañuy def lañ xam nga kuy jooy jooylu xam ngeen jooy jooylu ak jooy bokkuñu waaye koo xam ni def am pexe mu jubal da koo mokkala mokkala mokkal ba ba muy jooy yow dangay nga kii dëggantaan day jooy fekk jooyut day jooy jooylu moo tax borom bi dee ko lan def ñoom lan def jëf jëf lañ doon def bëgg a def jooy jooylu la waaye fexe nañ ba mu nekk ay jooy la yabkuun ña jooy qaalu ñu ni yaa abana ey bàyyi suñu inna nun day dahabna nastabiq dañoo demoon ca àll bay rawante wa tarakna yusufa inda mataa'ina ñu ne Youssouf toogal ci bagaas yi xaar ñu tarak naa Youssouf ñu bàyyi añ ànd mataay na ca bagaas yi ndax dañ doon bañ dégg yi di ko jam ak àll beeg wóoru fa ba ñu dellu see rek fekk ni akalahu zi bu till gi lekk nag wa ma anta déet yow bi muminin la naa nun sax xam nañu doo gëm leen wax wala lépp lu ko fendi yow kay boo waxee pare kay neel tekk di ko déglu rek waaye li lay wan ni ku ràbbug yi maanaam bépp bunt bu mu yaakaar ni nit mën na faa jaar rek da koy jéem a fat wa ma anta déet yow bi mu mu'minin la naa di ñu gëm wala kunna sadiqin donte wax nañ dëgg ñun xam nañ ni bu ñu waxee dëgg sax doonu gëm lu waral loolu mooy seen bàyyi dañu woon damaa ragal till gi lekk ko moo tax borom xam-xam yi yëngu ci wàllu yar dañuy wax ni lépp luy may aji jubadi ak caay caay rek maanaam bul ko ko may lépp luy war may aji juba ji caay caay rek bul ko ko may ndax xam ngeen ne ba seen bàyyi waxee till gi lekk ko ñu ne ah kon suñu bàyyi xalaat na ne till war na ko mën a lekk kon nañ ñu till gaa ko lekk mu jeex ne ñoom mënoon def leneen waaye nag borom xam dañuy wax ne gis nga jubadi li tax mu soof mooy boo naree ak jubadi fi fim nekk nii bunt yi nga war a fat yëpp yëpp yëpp day am buy buy rëcc day booy fàtte loolu moom sayaboo ñun ñëpp nañ ko jaag gis nga jubadi baaxut àllut neen waaye bokk na ci nattu yi ci suñ borom def mooy gis nga boo naree ak jubadi bunt yi nit ñi war a jaar bu doon jàkka ji la da ngay tëj bunt yeeg fenêtre yi fàtte benn fenêtre fàtte googu nga ko fàtte moo nar a feeñal da ngay lépp fàtte benn ñii lan lañ fàtte defe nga ni ak till mën naa ñëw fekk xale lu góor mu lekk ko ba pare nga indi mbubb ma nan mbubb maa ngi nii mu takk rip ak deret te xusee ko wut fenn xo bënnut fenn loola moom wax dëgg yàlla ku amum xel sax war ngaa xam ni yëf yi moom demewut noona moo tax ba ñu yegg see di yuuxaloo yuuxaloo gu mét ba seen bàyyi déggee ñu yuuxaloo rek ci la xam ne xay am na wa jaau ñu daal di indi ala qamisihi ci mbub mam soloon bi damin kadibin ci dereti nar nar mooy la ah nar mooy aw fen maanaam baata fen bu diisee ci nit ki mag ñi lañ daal ay nar hada kadib lii de ay nar la bi damin kadib mooy dereti nar borom bi tabaraka wa taala mu ni qaala seen bàyyi ni leen bal li am ba des mooy sawwalat lakum anfusukum lii de seeni pexe lay bopp la sawwalat lakum seeni anfusukum seen bakkan yi digal na leen pexe mu bon amran muy mbir mii ngeen def waaye baax na fa sabrun jamil ma ne dinaa muñ muñ gu rafet lii nag moo war a nekk taxawaayu jullit saabu bu natt tàbbee ci kawam fa sabrun jamil ñu bëri ci ñun yeneen bi dane as sabru inda sadamatil ula muñ ci tellu ji jëkk jëlal ñu bari ci ñun nattu day tàbbi ci seen kaw ñu biiw ndeyjoor du sotti ñu biiw càmmoñ du sotti ñu biiw arrière jëm kanam du sotti ñu doog a wax bàyyi naa koog yàlla fekk déedéet bàyyiwoo koog yàlla da ngaa ñàkk pexe yàlla mu xàmmee na ku ñàkk pexe ak ku ñàkkul pexe waaye natt dal ci sa kaw nga muñ ko te yàlla tax fa sabrun jamil muñ gu rafet muñ gu rafet borom xam-xam ñu ne mooy muñ gu àndut ak jàmbat ak saalim wallahu yàlla almustaanu mooy ki ñuy sàkkoo ndimbal ala ma tasifun ci jëf ju bon jii tey borom xam-xam yi ñu ni seen baay biñ ko waxee ba àggal gars yi daal xam nañ ni sax ma anta bi na lana walaw kunna sadiqin xam nañ ni sax doo ñu gëm e eh, indi mbubb mi yow kooku daal di indi mbubb mi ñu ne ko bàcc ci seen kanamu baay ñu ko gis nga fekk biñ ko reyee ba noppi dañoo jël aw tef as tef muy mbay su ndaw wala lu li mel rek rendi ko raatale deret ji ci mbubb ma te it ci wàllu settantal sax gis nga deret ju ñu raatale ci mbubb deret jun raatale ci mbubb maanaam mbubb moo jël taqal ci deret du bokkal till bu ko doon lekk ni mu koy def même ku même même yow histoire bi bu la concerné wul sax waaye ci xam technique rek deret joo xam ne mbubb moo xam dañ ko jël sóob ko ci deret ja ak loxo yoo xam ne yaa ko taqal deret laal ko ci mbubb mi ak till bu ñëwoon di lekk nit ki sans sax mu xutti ko ñetti façon taq-taq yi duñ bokk gis nga deret ji nga sóob mook deret ji nga raay loxo duñ waaye settantal yooyu nag ulin nuha boroom xel yi ñoo moo tax ab jullit dafa war a yeewu gis nga waxoon naa la ko ci dars di passé boo gisee xudaat yu njëkk ya ay nit yu yeewu lañ daan doon ñoo xam ni masala mun leen mës indil rek masala mun leen mës indil rek am nañ ca àtte te loolu mën nañ cee joxe misaal yu bare bare bare yoo xam ne buñ ko toppoon mën naa jël lu bari ci suñu waxtu waaye xudaat yu njëkk ya léeg-léeg da nga yàgg si rek moo tax dinaa ko wax gars yi léeg-léeg boo seetloo même ci suñ jamono gis nga ñii di àtte nii moo tax pour nga xam ne lépp loo gis rek diine l'islam jiitu na ci ñëpp gis nga même léeg-léeg xudaat yi da ngay gis da ngay ñëw ñu war laa àtte moo xam dig la moo xam feneen xaw ma loolu seetlu ngeen comme déet dañuy convoqué neuf heures ci suba bala fa bala fa ba huit jublu ca la ñuy bokk na ci in ci jublu mooy doomu aadama suñ ko bàyyee foofa ba heure boobu jot luy xew lan mooy xew day xonet day yàkkamti day ñëg day mer day afone te ñett yi bu dalee nit mën ngaa wax loo warta wax mën nañ laa laaj nga dëggal lu du dëgg mbaa nga weddi lu nekk dëgg bàyyi leen xel loolu bu baax a baax loolu ak a yàgg defe naa bu ngeen fàttali ko am na suñu benn dar su mas naa leen fee nettali góor gu ñuy wax xaali ma jaxate kala nga xam ko kooku qaadi la woon qaadi xaali olof yi ñoo tayal rek di wax xaali du xaali ma jaxate kale qaadi la qaadi ma jaxate kala qaadi ma jaxate kala dañuy wax ne kooku ci ñi dàq te histoire boobu lu am la ci ñi dàqoon a fii ci réew mi la bokk ci xudaat yi la bokk ndax réew i amoon nay xudaat ay àttekat bokk na ci misaal yi ñu ko mën a joxeel dañuy wax ne benn bis dañ koo indil ñaari nit ñaari jëkkër ak jabar jëkkër ak jabar jëkkër ak jabar kii ni ko man dama ko joxoon aw nag mu yaral ma ko mu dem ba nag wi am doom ba nanga ba bëgg koo jël mu lànk ni duma delloo nag wi sama jabar a ngi nii mooy sama seede kee ko waxul dëgg waxul dëgg abalu maw nag joxuma nangam nag wi saaw naga soxnaam si wax nga dëgg de nag wi saa nijaaya ko moom léegi lu ci àtte bi <laughs> li ma wax kay leer na nañ xanaa kay yaa doon rek loolu kay léegi lu ci àtte bi bu doon mun na fi mu nekk nii jafe-jafe la ñu am de bu rëy waaye déglu qaadi yi ni mu def nga xam ni kon ñu njëkk ña noonu lañ doon def qaadi yi dañuy waa dem leen ba suba ngeen ñëw ñu dellu bañ delloo mu defar lu benn menuisier keesu weñ goo xamante ni keesu néew lay tolloon kees ak néew bu ne ko da nga koy defar ba nit mën cee tëdd te du gaañu te dina am ay bën bën yu mën a noyyee te ku ne ci biti doo xam lu ne ci biir kees gi xam nga loolu mën naa nekk mën nañu defar kees gi noo xam ni dina am bën bën yu nit mën a noyyee waaye yow mi ne ci biti doo xam lu ne ci biir kees mu wax benn waay ni ko yow moom yoral yëg ak ak fooy loo dégg rek bindal yow bul yëngatu bul tësli bul sëqat bul def dara tëddal rek nim néew di tëdde ñu xëy si te suba sa kenn ku nekk ànd ak soxnaam ñu dem teg fee kees gi ca naaj wa ki ni moo moom nag wi ki moomul nag wi te moo ko yore ñu ne ko yàgg soxna jël leen kees gee ngeen diri ko ba ca garab gële ngeen bàyyi ko fa ñaar ñi ci des diree ko ca garab gële andiwaat ko xam ngeen day diis te naaj bi tàng na ñaar ñu njëkk ñi commencé di diri kenn ak soxnaam te kees gi diis na lool ñuy diri affaire bi diis lool di diri ba ci digg bi soxna si daan di jaay teen kaa bàyyi yàlla yomal xiyaam yàlla moom xam na bu ñu fayul fii ci àdduna yomal xiyaam danañu fay ki ci biir daal di bind lool dégg lool bind lool mu ne ko duma ko bàyyi yàlla moom kay nan def rek lu nu am rek jël ñu yóbbu ko ba ca garaw ga bàyyi ko fa dellu sax ma loolu kenn dégg ko ndax nit ñaa ca ker ga ca naajoo lañ doon defee loola keneen ki di diiri ba mu yàgg mook soxla sa ni kon di jaay yooyee lii moom saye boo buñ ci dugg ndax man sama loxo yaa ngi nii di tàmbalee dagg te ñu ko àllum neen nan ko bàyyi nag mu jeex mu ne ko duma ko bàyyi dugg naa ci ba nopp waaja daal ci biir daal di bind loolu atte bi jeex na at xoolal xoolal ñii ni ñu yeewoo woon ñu demee ba yëf yi sotti mu wax waaja moom ba mu génnee rek la atte moom bi mu génnee daanaka jërut muy wax ndax foog naa ne bu nee tëll génn ñii jàkkaar na oo xam ni kon lan doon wax dégg na ko ñii jàkkaar xam ne doon wax nag na ko xudu yàlla bi jeex maa ngi liir benn bi ci benn téere benn xaadu yi dañ koo indil mbooloo fukki nit ñu ne ko ki sàcc ci ginaar gi ci ñii la nekk mu ni mu daan dugg ci biir néeg bi jël benn corde mooy corde yi maçon yi yore mu taqal ko bula ba mu taq daal di koy takk xam nga rek nit ñi niñ mën a ñàngale tiital tiital def si ay débat débam ay ñaanam day day day naxaate rek dafay débat débam ni sama fil kii moom amul sàcc buñ ko mës indi lu dul jàpp na ko ñoom nañuy dugg kenn par kenn ci néeg bi ku dugg rek na téye fiil gi fiil gi moom ku ko téye bu dee yaay sàcc bi dina la jàpp ka njëkk a dugg dugg génn mu xool gis loxo bi taq ñu ko keneen génn loxo bi taq keneen génn loxo bi taq kenn génn loxo bi taqul ñu ne ko yaay sàcc bi lu tax mooy sàcc bi lu tax jàpp te njàpp loo ko ah keneen a filmé lay jàppaate ah déedéet nu nu mu ko xamee lu mu tiit lim gëm mooy bu jàppee fiil bi kon bu mu ko jàpp subhanallah wallahi da ngay gis xubaat yi ni leen yàlla maye woon ci mën a seetlu loolu nag bu leen yaakaar dafa jeex de mi ngi am ba tey am na ay nit yoo xam ni borom bi tabaraka wa taala may na leen ci seetlu waxuma sax technique yooyu waaye même boo jàkkaarloo woon ak ñoom di wax sax wax ja dëgg la ak di dëgg danañ ko xam seen baay ba mu xoolee seen xar kanam yeeg seen werange ko bët yi ak seen jëf yeeg seen simis bii nga xam ne fàtte nañu tëj bunt bi fàtte tëj fenêtre ba moo tax gis nga nit day sàcc fàtte fa carte d'identité nit day sàcc fa maanaam dafa mel ni la koy feeñal moom moo koy wane loolu mooy ne gis nga jubadi wóoru wala yaxiqu l makru sayyi'u illa bi ahli pexe mu bon moom ci sa kaw rek lay daal di këpp gépp jubadi koo gis mu def nit def ko nga defe ne jig na ko jig jubadi du jig kenn sunu borom bu ni wa jaat mu dal dikk sayaaratun am njëg ay caravane muy ay commerçant yoo xam ni ay gëléem lañ yoroon di romb fa arsalu waaridahum ñu daal di yabal ke leen di nandal al waarid mbooloo mi caravane bi bu ñu àndee am na koo xamante ni mooy nekk gidd bi kooku moom àll bi rek la xam moom moom du moom du réer moom loolu day am day lu ñu tuddee gidd am na ñoo xamante ni bu jëkkoon xam nga lan mooy seen liggéey gindiwaate karabaana ngi nii fukki commerçant ak ñaar ñoo ci nekk dañoo war a jóge fii dem Tamba ñoom xamuñ fi dara moom moom dina leen teg ci yoon wi ba fu fu ndox am na ci yoon wi xam na fu ñu war a fanaan xam na fu am ay danger xam na fu am sécurité maam àll bi rek la xam moom moo lay yóbbu ba nga àgg bu indiwaat la nga fay ko loolu rek lay liggéey am na koo xamante ni moom nandal lay lay def mooy mbirum ndox bu njëkk loolu ci mbooloo mi lay bokk mooy féetewoo indi ndox mi kii maa féetewoo togg bi waarit mooy ki nga xam ne moo waroon a wuti ndox ma bañ toogee noppalu ñu romb ca pegg teen ba nee na fa adla dalwahu mu daal di yoor ab gojam ba mu yooree goj ba rek yusuf a ngi ci biir yusuf jafndu ci ba ko waajee gisee mu ne yaa busra ay bég na tey moom tey lay neex yaa bus yaa busra tey rek la bi nar a neex mbégte am na hada gulaam ki ma génne ab xale la borom xam-xam yi nee nañ yuusufa bi ko mbokk yi tàmbalee demuñu demuñu ci saasa dañoo toog di ko seetaan maanaam ndax day dee ñu jëkk dem yàgg kenn ñëw yërlu ci teen bi xool ndax dee na ndax mi ngi yuuxu ndax yooyu yëpp dañ ko doon xool ñu jékki-jékki ba mu yàgg rek seen benn ay am mbooloo di ñëw benn waaye ci ñoom daan ne eh, am na ñu jëm ca teen ba de mbaa suñu secret bi du feeñ kooka daal di jukki génne Yuusuf bi mu génnee Yuusuf ba ni yaabu busra hada gulaam bég waay gaa yi daal di yegg xam nga gaa yi luñ ko wax eh, eh kii sunub jaam la jaam bu bon la dafa daw moo tàbbal moom ci biir teen bi waa mu ne ah bu dee da koy jaay jaay ma ko ñu ne ko indi njëg gi ñu jaay la Yuusuf ni cell waxut dara waaye Yuusuf lu tax waxut bu ñu waxoon dañuy jàpp ñi nee na bu waxoon dañuy jàpp ñee est-ce que loolu tax Yuusuf waxut ah leerul de ah fa mu bëgg a jëm même bu dee daan na nekk jaam moom la gën a préféré fii mbokk yi loolu ñaaw na say mag yoo bokkal benn baay ñu ne la jaam nga nga nangoo nekkub jaam ñu ne kaay ñu jaay la nga nangu ñu jaay la bi samanin baxsin njëg waxaale saman bax mooy wanteer du yéen a ngi dégg wanteer baa tab wanteer bi samanin baxsin darahima mahduda mooy dañ ko far wanteer kii sunub jaam la jaam bu bon la te xool gars yi dañ ko naroon yóbbu noonu ñu ni ñu leen déedéet yeew leen ko xoolal ñu yeew ñu loo parce que dañu bu ngeen koy bàyyi muy dawaat gars yi yeew mu ni cell moom it jàmbu bu bon bi nga doon waaye baax na boo yeggee rek nangam leen ko moom mu ni cell rek subhanallah loolu ñaaw na de wallahi ñaaw na lool gis nga ñaawaay boobu ci ngay xam ne yusuf wallahi yusuf gor piir la wurusu ngalam la ndax gis nga ku dul fàtte ku dul fa kuy fayantoo doo moroom yusuf ndax xoolal jëf jooju yow boo ko fàttali ko rek dootoo mën a baale est ce xam ngeen ne léeg di nga gis nit dara dina ko gaar nga sàkk ci moom baale ba sonn du baale léeg-léeg bul mere nit ki léeg-léeg comprendre ko tuuti ak niteem moo ñëw rek donte baalee gën waaye am na jëf yoo xam ne saa boo ko fàttalikoo rek dootoo mën a baale parce que jëf ja dafa ñaaw borom bi tabaraka wa taala mu ni wa asarruhu bidaa ñu daal di koy far nag defum marchandise rek daal di koy wanteer nag benn joxe nañ ko mu ni wallahu sa borom yàlla alimun xam la bi maa yaamaluun ca ñoom lañ doon jëf suppi nañ ko marchandise moom léegi parce que bëgguñu mu toppaat leen te xam nañ ni caravane bii fa mu jëm sori na ku te ñoom nañ ko liggéey nu mu gën a sori gën a baax borom bi mu ni wasarawu ñu jaay ko bi samanin ci njëg goo xam ni bax sin njëg gu wanteere wanteere wanteer daraahima maaduda ay dërëm yoo xam ne bi ñu ko séddoo defe naa ku ne ku ne ñaar dërëm la am ku ne ci ñoom kenn ci mu fassiru nee na ba ko séddoo ku nekk ñaar dërëm la am pour wan leen njëgg nañ ko waan wanteere wa kaanu fihi min azahidin yàlla mu ni moo ne soxlawul woon sax min azahidin mooy dañ ko def pare bale ko rek waaye soxlawuñ sax lañ ca jël maanaam ñoom amuñ aajo ci ñaar dërëm yooyu xam nga ne amuñ ca aajo moom ndax xam nga ni ku ci bëgg ku bëggoon xaalis doo jaayee jàmm mel ni Yuusuf te yow xam nga ni ñoom buñ ca bëggoon alal aka ñu ko cay am Yuusuf ñu ko taxawalee ci marché bi daanaka njëg ku nekk rek fay nañ ko ci lu tax ndax gone la woon te yàlla da ko dénkoonu taar nag genn wàllu taarub waa adduna suñu borom nee na ko ko tañax moom loolu kooku kooku kooku yaakaar naa ne buñ ko doon jaay luñ la ci wax nga jënd borom bi tabaraka wa taala mu ni waaja daal di koy jënd léegi nag fii ci laaya ji li ci feeñ ci aaya ji li ci feeñ dafa mel ni li ci feeñ mooy ka ko jënd foofa mooy al aziz waaye ñu mu arriqu nii mu fassirun dañuy wax ni ña ko jënd ay commercant lañu woon bañ demee ba ca marché ba nag ñoom ñoo ko jaay al aziz loolu la mu fassiroon yi wax donte aay ji boo koy xool day mel ni al aziz mi ko jënd foofa la ko jëndee léegi nag bañ yegsee ba ca marché ba di ko jaay ci la ko al aziz jënd al aziz mooy su doon suñu jamono ñuy wax premier ministre xam ngeen premier ministre daanaka daanaka mooy mooy réew mi premier ministre moom toujours mooy nekk réew seen jamono ñoom moo gënoon a foor sax tey ndax premier ministre xam nga am na sañ-sañ yoo xam ne sañu ko waaye jamono jojoom bu ñu nee al Aziz Aziz moo yore sañ-sañ yépp buur moom tur wi rek la yore Azizu Misra bi mu ñëwee ci marché bi gis Yuusuf xar kanam gaa ngay lerxati kawar gaa ngay lerxati ma ngay liis man ba sax xeeti nit yoo xamante ni boo leen xoolee rek bëgg leen loolu daal xaw mu affaire bi du mu demee noonu léeg-léeg sax mën na bañ nekk taar am na ci nit ñi ñoo xam boo leen xoolee rek bëgg leen mën naa bañ a nekk sax taar mën naa bañ a nekk sax alal da nga leen di xool rek bëgg leen imma seen yarba moo koy waral imma seen kersa gaa koy waral imma imma seen jëmm ja yàllaa xam Yuusuf nag yàlla da ko bindee woon noo xam ne xool bëgg la tudd gis ngeen ba jigéen ñi defee yan def lam lay wan mooy jigéen bu gisee góor joom mi bay jaawatle ab pom ak lu kenn xamut moo lay wan ni kon kii moom ki mu gis jommal na ko borom bi tabaraka wa taala mu ni wa qaala mu wax alladi ki nga xam ne istaraahu min misra gis nga ka ko jënd ca misra kon man nañ koo jëlee fii yóbbu ko ca misra jaay ko fa ka ko jënd ca misra nag moom moo ñu soxal ñun kon day firndee ba léegi li ma doon wax saa wa qaala wax na alladi ki nga xam ne istaraahu moo ko jënd min misra ca misra muy azizu misra limraatihi soxnaam sa ni ko akrimi maswaahu kii daal sa yaboo nga teral ko kii moom sa yaboo nga teral jaam la ñoo indi ko ci kër gi war koo jox cin yaag yëf yëfaan yaag mu war koo raxas nekk mbindaan ca kër ga ñu ni kii nañ ko toppatoo asa amaan na an yanfaana bisa ngi ñëw mu jariñ moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñett ñi gën a mën a seetlu ci àdduna bokk na ca ndaw sii azizu misra ndax bi mu nee soxnaam téye ko préparé ko amaan na an dinañu jariñ mu ne wallaay jariñ na leen ak kan ndaw sa waxoon jabari firawna waaw jabari firawna ca la bokk ndax loolu la waxoon ca Muusa ak kan ndaw sa waxoon baay ja may ma kii kii jël ko jël ko surga doomi Shuaybu ja ñenn ñi Shuaybu la ñeneen Shuaybu waaye lu mën ci am ala kulli xaal mu ni bàyyi ja jël ko surga inna xayra man istajarta alqawiyul amin wax noonu la amee ak kan mu ni Abubakar ba mu tolloo ci sukuraat ni jël naa Omar na fi Omar des mu ni yii ñett moom moyut yii moom moyut wax na dëgg kon loolu ak mën a seetlu la amaan na bisa ñëw mu jariñ ñu loolu mën naa dal nit ku nekk sax mën ngaa gis benn mbir rek am ci yaakaar asa an yanfa'ana amaana danañu jariñ aw nattaxidahu waladan wala ñu jàppee ko doom moo tax ñeen ci borom xam-xam ñu ni ñoom ñaar amuñu woon doom azizu misra ak soxnaam amuñu woon doom ñu daal di jël kooku def ko li ñu tuddee ak tabanni nii mooy doomoo ko adopté ñu adopté ko daal di koy doomoo ah sunu borom ni wa kadalika nii nga ko gisee daal naa li ba ci lañ commencé nag di jàppandalal yusuf defal ay jàppandal nag tamkiin tamkiin mooy yombal yembal mbir yi boo seetloo ci saar bi tamkiin ñëw na fi ñetti yoon tamkiin ñëw na fi ñetti yoon waaye yoon wu ci nekk rek karwaas yu métti mooy dal tamkiin doog a ñëw moo lay wan ne gis nga ñun liñ bëgg dafa yomb torop ñun dañoo bëgg xëy xëy rek affaire yëpp daal di sottee doo fekk déedéet yuusufa xonc nañ ko ci baayam daal dinañ koy dóor tàbbal ko ca biir teen ba jàpp ko jaam wax ko lu ñaaw jaay ko ca marché ba indi ko ci biir pale bi wa kadalika makkan naa doog a ñëw ñu doog koy commencé defal première grade bi génn na ci pale bi dugg na ca kaso ba dem na fay coona def na fa nangam wa kadalika makkanna li zuhuriha min a ahadith ñu dox ko xam-xamu firi gént ba gis nga de dugg na ci dëkk bi yore na nguur gi daj na ci ay xeeti coono loo xam ne ku ne xam ne yore yorem réew neexut wa kadalika makkanna fil ardi yatabawa minha haythu yasha léegi nag moom fu ko neex teg tànkam amut lu muy tiit lu muy ragal tamkin googu muy yàlla defar la say mbir yépp yemb nga di ko am na nga ko bëggee dimbalam yàlla dëkk di ñëw doo yeewu nelaw ba yeewu biddanti bi suba bi sax nga biddanti yàlla di la ko defal déedéet loolu nag kenn ku ne ci ñun da koy sóor nga xam ni kon borom bi tabaraka wa taala tamkiin ci boppam même ñi gëm yàlla ñëpp sax ñu leen ko diggee eh, ca suuratul eh, nuur defe naa ca jeexintal ba bala mu koy defal ñi gëm yàlla faw nag ñu mel nam bëgg moom suñu borom wa lañu defal yusuf ak jàppandal ak tamkiin yombalal ko mbir yi fil ard ci kaw suuf si wali nuallimahu min tawil al ahadith borom bi li ñu daal di koy xamal nag xam-xamu firi gént moo tax waxoon naa la ca gént ga ma ni pirim gént du comme ni ko nit ñi foogee rek dem ci tali ba toog rek lu la wax nga firi ko loolu sax man dama wax ni loolu sax loolu sax yéen yéen xel sax war ko war a nangu ndax mas ngeen a dégg firi katub gént ba wenn ay woo ne ko sama gént gi nangam la mu ne ah loolu de xaw ko mas ngeen kaa dégg déedéet man dama ko dégg moom kay gént goo indi même bu dee gént ak sax ñu firi ko firim jinne waaye moom moom gàntal déedéet te xam dafa xam-xam léeg-léeg bu la ah loolu de wax dëgg yàlla dajeegu ma ak moom loolu de leeruma loolu de gisuma ko loolu de xawma ko waaye firim gént moom li lay wane ñi koy def ay naxasakan nag laa ci tappale mooy amu ci kenn ku naan xawma parce que affaire clientèle la affaire boo wootee ci rajo bi am na benn benn pacte bu rajo bi si ñoom teg Sonatel ndax comme dañuy woote te gis nga affaire business dëgg moo nekk ci affaire yi da ngeen koo yëgut rek parce que fi mu nekk dañuy siñanteeg moom numéro nangam numéro trois euh, trente trois nangam nangam huit cent nangam nangam rajo bee ko moom wala télé bee ko moom bis bu nekk am nañ émission nangam émission boobu ku ci téléphone ku nekk am na pour pourcentage juróomi dërëm wala nangam yoo xamante ni rajo bee ko ci moom li ci des yéen yéen ko ñu nangul ko parce que ña koy nangu xam nañ ni télécommunication xam nañ ni fii woote bi dafay bari kon ñoom am nañ ci pour pourcentage muy benn ñaareel mooy firikatu gént boo xamante ni su loo ko laaj mu ni xaw ma ko kay bu yàggee kenn dootu ko wat dañ aayu kon faw ñu andi ko aay koo xamante ni loo wax xam na même boo géntu ba ci suuf si sax di nuyonteeg moom mu ne nangam lay firi gis nga léegi nag loolu moo lay wax ne mbir yaay tappale la waaye xam-xam bi yàlla moo koy baax wala wala nu allimakum min tawil al ahadith yàlla mu ne maa koy xamal mbir mu gént moo tax nag mayu suñu borom la am na ñu ko yàlla may de ba tey jii ni mu amee nit ñoo xamante ni ñoom lu ñu gént gis ko loolu day am am na nit ñoo xamante ni lu ñu gént it mu nekk dëgg am na ñoo xamante ni it kadaalika yàlla may na leen ci firim gént da ngay gént rek nga ñëw wax leen ñu wax la ko ndax affaire dafa yomb torop torop torop waaye téere bi firim gént lay jàngaleeg nangam nangam nangam diw ma de yooyu ñi ko man daal bariwul loolu moom sa yeboo ngeen xam ko tam leer nañ ku fi am sa gént nag dem seeti benn waay boo xamante ni nag am naxandum la xàmmewul sax lu mu reeree démb nga wax ko gént ko mu firil ko firi bi ban mu këpp ci sa kaw bul yedd ku dul sa bopp mi ngi nekk ci tànk picc moom gént buñ koy firi muy tàbb boo géntee lu bon da ngay hmm? tafli sa càmm ñetti yoon musulu ci seytaane changer position bi nga tëddee woon te boo xëyee doo ko nettali mbaa bu mënta ñàkk nga nettali ko nga nettali ko ab boroom xam-xam te yam ca mu yam fa bu dee da gént lu baax nag boo géntee amul seet nag ku gént amul seet nu muy def ah nettali ko sa soppe dégg naa ko gént amul seet boo yeewoo da ngay merde wala wala du noonu boo gént amul seet boo yeewoo da ngay mer parce que gént ki fekk fireekuwul kon mbirum gént gis ngeen loolu mooy àtt bi borom bi tabaraka wa taala mu ne ñun ñoo ko xamal min tawil al ahadith firum gént wallahu yàlla gaalibun ala amrihi ku not la ci ay mbiram mooy lépp la préparé lépp la préparé gaalibun ala amri gis nga da lay wan ni yàlla xaalibun am bi boo dellu woon gannaaw ay at ci ginnaaw suñ réew mii rek jëlal suñ réew mii rek réew mii nii mu mel nii nii kenn tanewu ci kenn kenn mënu ko woon a estimer avant deux mille dix avant deux mille dix suñ réew mii ni mu mel nii tey ni mu mel nii kenn mënu ko gis nga ñi fi wax ñëpp kenn estimé ko woon lan doon wax ak lan doon foog ak lan doon yaakaar ak lan doon lépp njuuy maa am lu ko waral parce que wallahu ghalibun ala amri biri mbiram sun borom doomu adama xam nga lum xam ay technique ak i pexeem ak i ak yaakaar nañ bi defé li mu def la bo defé le mu def le gis nga mi ngi noonu gambi gi di sun dëkkandoo ay at ci ginnaw def na ni mu mel ni ku la ko estimé won nga weddi wallahu ghalib mbir yi yëpp yàlla faragara même sa dundu gi kadalik kenn ku ne sa dundu wallahu yàlla ghalibun ajnat la ala amri ci ay mbiram walakin aksar an-nas way lepp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu motax ngay tañaxuy dem rek yalla dogal waye nak walamma balagha ashuddahu ba mu demee nag ba mat waxambaane nag mat góor dëgg balaga ashuddahu mooy mat góor dëgg nag nekk waxambaane bu dëgër am na borom xam-xam ñu ni mooy boo amee ñeen fukki at ndax wala ma balaga ashuddaw ak falamma balaga ashuddaw yi ñëw ci alquran boo ko xoolee li ci borom xam-xam ne jox mooy sinnu i'ta nubuwa moy waxtu wi nga xamni ci la sun borom don jox yonent yi ak nubuwa wa illa dina jox yonent avant yonent nubuwa avant muy am ñen fukki at bokku na ci firnde ya aisha bokku na ci firnde ya aisha benen bi ci dess moy ki même buñ ko ko joxul won xam nga wa wax yi wax yi moom dikkal nako mom ci bir biir teen ba fekk xam nga ni gone fukki at ak nangam yàlla wax yu ko fofu borom bi tabaaraku taala muni walamma balagha asuddahu ba mu matee wax abaane nag aataynahu ci lañ ko jox nag ab atte muy ab nubuwa wa man jox ko xam-xam tamit nag xam-xamu yonent foofu nag yonent bi mu nekk ak yonent boobu mi ko fekk ci biir kaso bi boobu ci biir kaso bi la ko fekk loolu nag tekkiwut ni biñ koy jaay daa nekkoon mag de parce que biñ koy jaay gone la lan moo bi dox ci diggante ba muy dugg kaso bi bi ko nubuwa yi fekk ci kaso moom ñeenti ñeent fukki Ah? lu fi xew ci diggante bi li fi xew mooy biir pale ba mu jaar pale bi mu jaar am na fay at at yam amoon fee soo ko booleegi li mu am ci biir pale bi war na mën am foofu tamit di nga ci déggaale ni gis nga lu la waay mën a wax diggante fi ñu ko xoncee ci bàyyam ma fi mu dellu siwaatee yàgg na yàgg na ndax la cay firnde mooy biñ koy yóbbu mu dem moom fukk ya mat na mbaa mu jege ko jàppal loolu te ba koy natt bi fekk ci biir kaso bi moom ba ko xéewal ga yooyu nuboo gi dikk fekk na am na ñeen fukki at lu gàtt gàtt génn na fi ba yore fi réew yëpp ya doo nga xew kon ñanaan ñeen fukki at moom seen wax moom wax ju dëgër lay doon wax ju dëgër lay doon wala ëpp ko sax la ñuy wax wa kadalika nii nga ko gisee nag najzil muhsinin la ñuy fayee way rafetal yi mooy képp koo xam ne yaa ngi rafetal rek fii la suñu borom di mu ak yow moo yëf yi dana metti lool waaye da ngay xëy xëy rek mu daal di yomb noo ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq ak taysir اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين أيوة أنتم أردو